xanaa xanaa pour ma présenter waaye yow sama xarit ga euh, sama sama wóllare nga euh, professeur Papis Ndoye donc tur bi dëgg um, Umar Ndoye la waaye yow Papis ngay wax ñeneen ñëpp wàccee su baax Papis la ñu wax waaw ah, donc si mais defe naa euh, raison yi raison yu leer la parce que defe naa ne bala maa nekk militant ñëpp xam nañ ne citoyen la te tey jii li ñu fi ñëw li ñu indi mooy ñëw voté pour ay nit te voté bi tam dafa am leen lu ko lu ko jiitu woon mooy référendum bi bi ko Sénégalais yi validé à 63 pour cent moi je pense que il faut euh, il faut ñu ñu jox euh, ñu jël euh, kaddu askan wi jox considéré ko donc man je suis un citoyen qui dama ñëw accomplir sama devoir sama wareef laay dox si devoir de citoyen voté ak euh, vraiment voté te ñaan yàlla ki may voté bu gañ mm-hmm. mais mooy li ma lay wax rek euh, man citoyen la avant may nekk militant donc dama gëm affaire citoyen dama gëm affaire citoyen dama ji doole sax dara man man man nit mënumaa tënk parce que ne serait-ce que sama cassette bu professeur d'université agrégé titulaire de chaire ah di jàngal ay ndongo ñaanuma yàlla ñu may ñu may ñu may tënk ci ay wax xaaruma euh, tey jii xaaruma ci kenn dama ko def de façon spontanée parce que c'est un devoir citoyen encore une fois dama ñëw population bi ñëw ko voté woon ci référendum bi man dama ñëw dëggal kàddu euh, askan wi waaw loolu loolu ay nit ku ci nekk rek su la neexee nga def sa sa interprétation tey jii bëtu vote foofu vote la yow la woone man ci lu ci diir bu gàtt dinaa dinaa woote pour yëkkati leeral lépp lu war a lu war a mën a leer ci ci diggante wax wax yu sew yi ñuy dëgg ak yi nga xam ne képp ku ci wax rek da ngaa wax lu la neex parce que man dinaa ci diir bu gàtt laay wax ah, ci diir bu gàtt dinaa ñëw cees yéen ñëpp mbokk sama mbokk taskatu xibaar yëpp ñu gën a xóotal mbir bi mais tey daal je suis venu vraiment def si sama wareef mooy li population bi voté woon à 63 pour cent man dama ko respecté parce que encore fois c'est mon devoir citoyen que je viens accomplir te loolu kenn mënu ma koo xañ gisuma ku ma mën a tënk ne serait-ce que sama casquette professeur université du ma jàngal ay xale suba teel ñu naan ma dañ la tënk wala dara kenn mënu maa tënk li may def nii xoolal dama ko def en tout euh, vraiment euh, dama euh, assumer sama responsabilité yëpp mu mët sëkk parce que ci loolu laay dund loolu laa xam loolu laay jàngale voilà.